asalaamaaleykum di di nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp ak ñuy déglu ñëpp tey lu waral lu waral teewaay bi mooy Sénégal dafa am nu mu nu mu nu mu nu mu bàyyeekoo dañoo am aada am cosaan am diine et ku wax diine am ay confréries ak ay kilifa diine yoo xam ne dañu xeexal Sénégal ci anam yëpp te anam yi tamit mooy. defar jikko yi te li waral teewaay bi moy du lenn luddul ñew ku and ci xex bi ñëpp di mbirum borom ñaari tur waaw day xaw a ne sax bo newe ay góor jigéen mais yenn say day baax nga jaar ci digg bi parce que je me dis dëkk boo xam ne am na maam borom Touba am mam Alaaji malik am Maulana Cheikh al Islam am Baay Laay am Maam Bukunta Njaasaan am am am am mérité wul ñu fiy toog di seetaan ay góor di def noonu di di di fi indi ay jikko yoo xam ne tey suñu ay doom suñu ay rak mën nañ leen influencer ñëpp xam nañu ndóol bi nekk Sénégal tey bëri na si ñoom ñoo xam ne dañoo am doole donc ku ñëw ñu dévier la ak xaalis wala ak ay privilège day yomb.

mais Arnous, États-Unis bari bari bari démocratie boo fa demee munoo fa takk ñeenti jabar donc lu tax ñoom tamit ñuy bëgg a ñëw di imposer ay loi yoo xam ne Sénégal bàyyeekuwul noonu donc l'olo, waral tey ñu ñëw taxaw ne dañuy xeex aux côtés de collectif bi organisé rassemblement bi nii te wax ne Sénégal du dëkk boo xam ne war nañ fi autoriser n'importe quoi